wutuñ ci jullit bi ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem ay saxaabam ak xulafaawu yépp di yeggali téere bi ñu nekkoon muy téere boo xam ne ni ñu ngi ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy alhamziya fi rihaabi ala xayril bariya mu toll ci fa atayta بمنهج الرشد والخير العميم وعزب عين وماء فأتيت yow yonent bi indi nga ci àdduna bi manhaji rushdi ci benn doctrine boo xam ne ci njub la tegu wal xayril amimi ak yiw wu bare bare bare wa azbin te doon ndox mu neex aynun bëtu ndox la wa maa ak ndox la moo xam ne kenn du ko naan di fot te moo di programme unicité de Dieu ndax Makka ba bi yonent bi di ñëw trois cent soixante xërëm ñu nga fa ñu def leen ay idole wërale leen kaaba gi ci biir kaaba gi ñu dugal fa benn xërëm bu mag bu ñuy hubal biir kaaba gi ñuy wër tey ci biiram xërëm bu mag moo fa nekkoon bu ñu hubal ci entourage bi nag alentouru kaaba gi ñu teg fa trois cent soixante fële ci jabalu marwa ñu def fa benn xërëm bu mag bu ñuy naa ilatu fële ci jabalu safa ñu teg fa bu ñuy wax euh, isaaf ay xërëm yu mag lañu te ñaari xeer yooyu wala ñaari montagne yooyu ñoo tiimoon kaaba gi ndax kaaba gi ci benn xur la ne ñaari montagne yooyu tiim ko ci côté nord bi ak sud bi euh, yonent bi nag bi mu ñëwee programme bi mu indi mooy yii yëpp ay xërëm la ndax yéen yéen fa defar mu ñëw indi programme mu jaa alxaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kaana zahuqan lii ay idol la ay xërëm la dindi leen ko ngeen raxas seen xol def ci al ilahul muy yàlla ji nga xam ne kenn rek la muy allahu ahad alladi lam yalid walam yulad walam yakun boobu nag metti na trop mais am na ñu ci teel dès le début ñëw adhéré moo tax mu ne fa jazallahu xayra qarnin ataahu amanu haajaru fa ni'mal jazaa'u programme lu mu metti metti yàlla bind na dina tànn ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy soutenir programme boobu ba ba ci yàllay def euh, xéwal ba àdduna nangu ko moo tax muy ñaanal ñi njëkk gëm programme boobu ba mu agsi ci ñun fa jazallahu yàlla na yàlla fayal ñu xayra qarnin euh, gën ci génération bi nga xam ne ataahu ñëw nañ ci yonent génération bi gën ci génération yi yonent bi moo ko wax mooy nee na ñi ko jëkk ëmb ne xayrul quruni qarni ngën ci génération yi mooy sama génération summa lazina yalunahum après ñi ci topp summa lazina yalunahum topp ñi ci topp muy deuxième ak troisième génération amanu ndax ñoom ñoo gëm yonent bi te boobu yombul hajaru ñoom ñoo gàddaay bi ñu leen xatalee ndax Quraysh dana lii du fi am trois cent soixante yàlla te suñuy aajo fajuwul nga bëgg ñu indil benn yàlla buy faj aajo lool duñ ko nangu bi ñu commencé xeex ak moom di ko bunduxatal quelques minorités de personnes gëm ko moom mu jaral leen ñu gàddaay dem Éthiopie Afrique euh, deux fois bañ fa jógee après dem madinatu munawwara pour rawale seen pas-pas moo tax mu ne fa ni'ma baax na jazaaw li leen yàlla fay yàlla lim leen faye mooy l'éternité parce que chaque jour di nga toog dégg kuy tudd seeni tur mu ne xayruhum saxbuhu lxalaa'ifu daakum raashiduuna wa mahdiyuun xulafaa'u ñoom ñooñu yonent bi nee na lu yàlla bind maa ci gën samaw xeet ñoo gën ci xeet yépp man nag gannaaw man ak sama euh, sama xeet sama xeet ñi ci gën mooy samay saxaaba yi nga xam ne ñoom laa dundandool ñu gëm ma nag ñi ci gën ñeent lañu mooy sayidna abu bakar umar usman ali wala mu ne xayruhum saxbuhu alxalaa'ifu daakum raashiduuna wa mahdiyun xulafaa'u xayruhum ñi gën ci saxaaba yooyu maanaam ñi gën ci xeet wi soxbuhu mooy ay saxaabam yi nga xam ne xalaa'ifu ñoo ko fi wutu muy ay successeur am boroom kër bu nekkee ci këram bay dem jël caabeem ka mu tànn ne que teel ma caabi ji ba mu dellu wax dëgg yàlla kooku for na ci moom wóolu na ko yonent bi nag bi mu fi indee programme bi bi muy dem ñi ko wutu ci gannaawam ñooñu foor nañ ci moom moo mu ne xalaayifu ñi ko wuutu zaakum ñooñu rashiduna ñu jubluñ wa mahdiyun yàlla moo leen jubal xulafaawu ay xalifaam lañu ñan ngay wax li ngay wax dafa màgg mu ne fa abu bakrin siddiq wa thanil gaari niamal atiqu niamal fidaau kii seen patron ñoom ñëpp mooy abu bakar siddiq abu bakar siddiq abdullahi la tudda ibnu abi quxaafata moom lañu wax ne téere yi xeet wi yépp ku dul abu bakar ku dul yonent yàlla muhammad abu bakar la gën abu bakar yàlla may na ko teraanga yu bare bare bare bare bokk na ci teraanga iman walladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi alquran tudd na ko ku bari fa ama alladi wa ama man ata wa taqa abu bakar la ko yàlla wàcc ci moom bari na ay ayat yu yàllay tagg abu bakar abu bakar wax nañ ne moom mooy nit ki am ci lislaam ñeenti génération yoo xam ne ñëpp ay saxaaba lañ mooy baayu abu bakar jullit la muy abu quxaafata abu bakar ci boppam deuxième génération jullit la doomu abu bakar muy abdurahman jullit la doomu abdurahman bu ñuy wax muhammad saxaabi la maanaam abu bakar saxaaba baayam saxaaba doomam saxaaba la sëtam saxaaba la Muhammad boobu bokk ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñaari at la dund ak yonent yàlla Muhammad turandoom wuy ji borom yonent bi wuy ji borom waaw Aboubacar bu dee moom yàlla taat may na ko boobu teranga bu dee ci côté beneen bi itam baayam jullit la muy Abu Quhaab Aboubacar jullit la doomam bu ñuy wax Asma bint Aboubacar jullit la abdullah ibnu zubayr ibnu awam mère bi moo ko jur moom it jullit la kon surtout aboubacar dawnaat na foofu saxaaba euh, aboubacar borom wërsëg la woon ku yàlla mayoon wërsëg kaar ndax da daan jaay or ba nu tey mu giir gi mu bokk ñoom yàlla leen may wërsëg da daan jaay or di dem siri di ñëw amee ci xaalis bu barkeel tabaarakallah waaye lépp jël na ko financé ko ci lislaam moo tax mu ne fa aboubacar xoola aboubacar rek ñu koy wax ab mu tudd abdullah as-siddiqu mooy ku dëggu ki maanaam ki nga xam ne dafa dëggu ba lépp luñ ne yonent bi moo ko wax mu dëggal tur woowu nag ñu ngi ko ko tuddee waa màkk ci boppam ñoo ko tuddee keroog ba yonent bi demee riñaane ji dellu ci yoor yoor bi génn doon tawaaf kaaba ga dajeeg abu jahlin mu nuyoonteeg moom nekk tey loo ñu loo ñuy indil waxu kuy weddi mu nekk a ah, Dieu merci ndax démb demoon naa Jérusalem baytul maqdis mu ne ko démb gisee nañ fii bi ñuy reer ci guddi gi mu nekk effectivement bi ma demee ba fatu laa dem bi Jérusalem mu nekk nga xëyewaat nii mu ne ah, mu nekk xam nga li ngay wax mu ne ko waaw mu ne ko parce que ñun ay commerçant lañ abu jëxlin dañuy dem baytil maqdis di dem ak ñëw te ale bi weer la ale bi ale bi rek weer la retour bi weer la yow bi gis naa la nga fa nga demoon mu ne ko effectivement noonu la demee waaye yàlla moom ay mayam dafa yaar te moo ma fa yóbbu mu ne ko lenn rek laa ñaan est-ce lii nii bu ma oowee nit ñi di nga taxaw waxaat ka yow ndax moom moom rek la te comme amul seede mu nekk adduna bi yëpp boo leen ma waxaat ko Abu Jahl nekk bu ndaw de taxawal woolu waa Màkka ñu daw ñëw eh, kaay leen dégg nouvelle bi parce que Abu Jahl li mu bëgg yëpp mooy nit ñi weddi yonent gis na ne am na atu nag ñu ko weddee mu oolu waa pénc ma ñu ñëw eh, mais li ñuy waaxu yëpp mu ngi gestu gi gis di xool yonent bi est-ce que dawul est-ce que dawul wax arab wax ju teggiku dafa rëy ci ñoom hmm. bi mu woowee waa Màkka ba ñu agsi mu ne yeneen ci bi sañ nga wax li nga waxaatoon mu ne ko waaw d'ailleurs ma ne yéen waa Màkka de biig laa wax dama demoon Baytul Maqdis ba ñëwaat naa nii sama borom moom fa yóbbuwoon ñu ñëpp daanu ci suuf keex keex keex kii nag dañ doon wax dafa dof mais ndekete dëggal Abu Jahlin léegi waa Màkka yi ko weddi moom doonatuñu problème am mais dafa bëggoon jullit ñi nga xam ne gëmoon nañ ko xëy na ci ndox buñ déggee lii dañ xam ne lii logique wul bu ko defee ñu mën ko weddi mu wóolu ci nag jullit yi wax leen ko ñii commencé sikki sàkk mu oolu ci Abu Bakar ne ko dégg nga li sa waa ji wax mu ne ko lu mu wax mu daanu ci suuf di lu mu wax mu ne ko nee na dafa demoon baytul maqdis mu ne ko in kaana qad qaala faqad sadaqa bu dee moom moo ko wax wax na dëgg abu abu jahlin mel ni ku ku am déception nekk at tusaddiquhu fi dalik yow Aboubacar da ngay dëggal sa waa ci wax jooj te biig biig ñoo nekkoon ba ay vingt tey ñu xëyaat ci dix heures mu ne dem na ba ñëw mu nekk ah ah kay dinaa ko dëggal ci loolu ndax dëggal naa ko ci lu gën a metti loolu ndax toog naa ak moom ba tàyyi ñuy waxtaan ba yàgg mu mu ree ne ma yàlla nee na Jibril la fi yónni léegi Jibril nee na nangam nangam nangam kon nag gannaaw loolu moo gën a jafe mooy jóge asamaan ma koy dëggal ci loolu kon bu nee dem na baytul maqdis gii nga xam ne soriwul te xam naa fu mu ne kon danaa ko gëm ñu jiital Aboubacar mu ñëw ba ci moom nekk ndax yow yaa wax ne da nga demoon baytul maqdis mu ne ko effectivement démb falaa demoon mu ne wax na dëgg ndax dama koy dëggal lu gën a weesu loolu ndax daf may indil axbaaru samaan information yu jógee asamaan yonent bi nekk walla sax d'ailleurs bi ma jógee foofu dama mujj dem asamaan ñi ñi daanu suuf Abubakar na wax na dëgg billaahi wax na dëgg jullit yu bari téere yi ne nañ am na ci jullit yoo xam ne dañ doon sikk sàkk ñi ci des ci lañ murtat génn ci lislaam ne lii mënul ne Abu Jahlin topp ko di ka ree ci lañ jekki-jekki yàlla wàcce aaya ne Abubakar de alladi mooy ki nga xam ne eh, walladi jaa bi sidqi yàlla yàlla nee na maa ngi tagg waa ji indi dëgg te muy alquran di yonent yàlla ba wa saddaqa bihi aboubacar dëggal ko ci lañ ko tudd siddiq abu jahlin moom it ci la alkoo ba faw parce que ak yonent ku ko weddi alko moo tax aboubacar ñu tudde ko aboubacar am na ñetti tur tudd na as tudd na al atiq tudd na ar rafiq te ñetti tur yëpp yonent yàlla muhammad moo ko tudde benn bés dafay dafay añ ak sayidna abubakar omar usman ali biñ toogee ci ndab li yonent bokkoon na ci jikkoom yu rafet yooyu mu daan def ku mu a bokkal ñam dina tibb ab tibb eh, eh, maanaam ñàkk ñaagal la ko jox la ko nga lekk ngir mbaaxam Mawlaay Cheikh Al Hajj Abbas radiyallahu anhu daan na roy sunna boobu tibb sexal yeneen bi tibb sexal Ali mu lekk mu tibb sexal Ousmane mu lekk mu tibb sexal euh, Omar mu lekk mu ñëw ba ci Aboubacar tibb sexal ko defaat beneen tibb sexalaat Aboubacar defaat beneen tibb sexalaat Aboubacar ñoom ñu jaaxle ndax xam nañ ne yonent bi du def bi bi ñetteel bi matee bu soog a continuer di lekk bi ñu lekkee ba raxasu saxaaba yi jaaxle na ka ah, ñun kat jaaxal nga ñu ku màndu ko waaye danga nga sexal Aliou benn Ousmane benn Omar benn te ñëpp say goro lañ bi nga ñëwee ba ci Aboubacar nag nga sexal ko ñetti yoon mu ne nu may def ba duma ko def dama sexal dama sexal Abu Bakar Jibril ni cëpp sama kanam ne yàlla nee na ni'ma siddiq o oh, waaju dëggu gi ku ku véridique gi ak a baax ma dem bay bàyyi ma xam ne Jibril pareegul ma sexalaat ko mu ne yàlla nee na ni'ma rafiq ak a baax sa àndandoo bi nga xam ne yéenay ànd ba biir àjjana ma bëgg a pare jibril taxaw ma defaat beneen tibb jox ko mu ne ni'mal atiq ak a baax waa ji nga xam ne yàlla goreel na ko ci safara ñett la wax nag ne fër dem ma xam ne kon yàlla tudd na ko ñetti tur siddiq mooy ku dëggu ki ku dëggu ki nag li muy firi mooy même bu juumoon wax lu dul noonu sax yàlla def ko noonu la ko dëggal mooy benn soxna dafa gént ci madinatu munawwara garab gu mag gu nekkoon ci biir këram daanu mu yeewu ci gént gi tiit dem ci yonent yàlla muhammad di ko nettali yonent bi nekk ana sa jëkkër mu ne ko dafa tukki woon mu ne ko demal fireeku tënj te xam ne yàlla dalay wan ne sa jëkkër dee na ci tukki bi ndaw si di jooy bi muy ñibbisi ci yoon wi dajeeg abubakar siddiq mu nuyoonteeg abubakar mu ne ko looy jooy nii mu ne ko man di gént gu ma tiital jotu koo wax nag fi mu jóge moom ndaw si gént gu ma tiital daal moo ma tiital nii ba may jooy mu ne ko loo gént mu ne ko dama génte garab gu mag gu nekk sama kër daanu bu ne ko woon ci yeneen ci village jóge nee na nii la ko firee ñu ma a wax mais da nekk loolu kay jarul jooy moom Aboubacar sa jëkkër garab googu daanu googu mu daanu yàlla da rek seedal ne la dina ñibbisi dina ñibbisi balaa une semaine jarul ngay jooy bégal mu dellu toog yàlla fii saw fawqi sab'i samawati yi mu ne comme maa tudde man abou bakar waxkatu dëgg bi rus naa muy wax waxam di di tegg une semaine lañ ci teg waa waaye ñibbisi ci kuñ newoon dee na ba pare ñibbisi ndaw si bëggee nangam nangam quelques jours waa ji deewaat dee ñu dëj ko nag ca kër ga yonent bi yëg loolu ñëw jaxle Euh, yàlla yónni jibril jibril ñëw ne ko yow yonent bi bul jaaxle kaawu waa ji nii nga ko waxe woon noonu la dem waa ji dee woon na euh, tabaarakallaa ba yëfam jeexul mais sa waa ji moo jaaraat ci gannaaw ne dina ñibbisi te yàlla nee na rus naa teggi wax waxu Abubakar hmm. yàlla rus na ko ndax moo ko tudde siddiq moo ko tudde saddaqa bi looloo tax comme nag moom nee na dina ñibbisi yàlla dina teral waxam jooju ba mu ñibbisi bañ dalal ko mais dina deewal ku dem nag ba yàlla ci dëggu kooku même boo waxoon lu dul dëgg sax yàlla def ko dëgg loolu mooy martaba siddiq xadis la yonent bi nee na aleykum maa ngi leen di dénk bi siddiq ci wax dëgg nit dafa war di tàmmal boppam wax dëgg ndax mu ne fa inna sidqa dëggu wax dëgg yahdi dafay yóbbu nit ilal birri ba ci mbaax da gis nit ku crédible ñu ne kan jiw de lu mu waxoo rek lu mu la wax rek faye ko bor wa inna wa innal birra te mbaax yahdi ilal jannati day yóbbu nit àjjana ku yàgg baax yàgg dëggu àjjana nga jëm yonent bi nee na wala yazaalu rajulu nit du dañ yata sad yasduqu di wax dëgg wa yataxarra as-sidqu fi aqwaalihi muy nattale ay dëgg ci ay waxam maanaam dëkkee wax dëgg dëkkee wax dëgg xataa yuktab bañ bind ka inda allahi fa yàlla siddiqan waxkatu dëgg bi gis nga ne nit bu demee bañ am marka bu siddiq mooy même bu waxatee lu dul noonu sax ngir njort yàlla dëgg la koy bind contraire bi noonu la demee yonent bi nee na wa iyaakum maa ngi leen wattuñu ko wal kisiba ak ay fen bàyyi leen di foowee fen ndax wa inna rajula ndax fa inna kisiba fen dii dafa yóbbu nit ilal fujuri ci caay-caay ku yàgg fen dangay ngay mujje doon saay-saay ca yàlla wa innal fujura yahdi ila naar te caay-caay ku ci dee safara nga jëm wala yazaalu rajulu nit du dañ yëg ni bu dëkkee fen di ko tàmmal boppam rek wa yataxarras kadiba mu tàmmal boppam fen fi aqwaal ci ay waxam xataa yuktaw bañ bind ko indallahi fa yàlla kazaaban fenkat foofu nag bu fa nit àggee bi maa ngi lay yëgal ne bu wàccoon kaamil sax fenkat lañ koy bind lu mu mën a def ci lu baax jëfi fen lañ koy bind te fen mooy bàkkaar bu waxee dëgg fen lañ koy jàppe loolu nag jéggi na dayoo abubakar nag siddiq la mooy koo xam ne dafa dëggoo dëggu ba lu mu def yiw lay doon wa saanil xaar yi moom mooy ñaareelu waa ji ñëwoon ci xaaru xiraa xaaru xiraa keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay dafa génnee màkk ci tiitaange kenn rek la àndal muy abubakar siddiq ñu topp àll bi di daw ñu xam ne bu ñu dégmalee yoonu madinatul munawwara te moo tolloog nooru Màkka dañ leen di jàpp ñoom ñu jëm jëm sud bi xam nga ki dëkk bi nga xam ne noor la ne boo génnee ci Màkka rek jëm côté noor ko xalaat ne dëkk sàngam nga jëm muy Yasrib muy mun a Munawwara xam nga dañ lay topp mais ci xel moom mu rafet moom yonent bi dana ko dañ jël yoonu Yaman muy sud bi ñu jël sud bi dema dema dem ba bët gisatu leen ñu fekk fa benn grotte nag benn xunt yeneen bi nekk nañ fi dugg nëbbu le temps ñu wër ñu ba naagu ci ñun ñu soog a dem ci lañ dugg nag ci xaaru abi sëwr benn paa bu ñu daan abi sëwr moo fa nekkoon ñu miin ko fa ba ñu tudde ko xur woowu abubakar siddiq nag ak yoon yonent yàlla muhammad ñoo fa nekkandoo woon ñoom ñaar ak yàlla subhanahu wa taala laa taxzan inna allaha maana waaye moo tax mu ne nicma aka baax al atiqu kooku yàlla goreel ma aka baax fidaa u sacrifice bi mu def ci jote boppam ndax bi mu duggee ci xur wi euh, xunt bi dana yonent bi taxawal ci biti ndax ma njëkk a duggal luy gaañ ci biir njëkk ma gaañ man abubakar bi mu duggee fekk na fa ay pax muy xotti ci yére yi mu sol moom Aboubacar di saañ pax yi di xotti yére yi mu sol yi mu sol di saañ pax yi ba pax yëpp jeex mu des benn pax yére yi mu soloon daanaka tubéy ji mu sol rek a ci des te bëggul a rafle mu euh, euh, mu mu mu maasale barab bi maasale ko ba mu nooy nepp nepp mu ne yonent bi bismillah yaa sayidi duggal yonent bi dugg mu mu ne ko tëddal noppalu dox bi metti na te ti ti euh, euh, tiitaange moo ñu dàq yonent bi tëdd mu teg ko ci poojam moom Abubakar jël bopp yonent bi teg ko ci poojam jël nag tànkam euh, sës ko ci pax moomu ci des ndax pax doo xam paxu lu mu doon téere ne benn jan yàlla yëgal ko ne afdalu xalqillah ngir ji mbindeef mu ngi ci biir pax mi jaan jooju nag jugoon doon ziar si yonent bi xamoo ne lu yàlla bind rek xam na yonent bi yonent bi nee na lu yàlla bind xam na ma illaa usaatul jinni wal insi lu dul mooykatu yàlla nit ñi ak jinne yi maanaam nit ak jinne kese ñoo mën a janoog yonent bi te duñ ko xam mais lu yàlla bind lu dul nit ak jinne xam na ko yonent yàlla muhammad jaan ji bi mu génnee pour doon ziar ci yonent bi mbëkk tànku Aboubacar mbëkk tànku Aboubacar def ko ay yoon matt Aboubacar nag ngir bëgg mu teggi tànkam mu mën a jàll ziar si yonent bi Aboubacar du ko may Aboubacar raful yënguwul teggiwul tànkam mu matt ko matt ko màkk matt ko ba dangar ji commencé yéeg bi muy yéeg ci nit ku weex ñu commencé yaram gi xonq dangar ji jàpp ko ba mu commencé di ñaq ñaq boobu nag moo ne tàpp moo ne tàpp ci lexu yont yàlla muhammad tàng jër ndax ñaq ku tiit dafay tàng jër bi mu dalee ci lexu yonent bi yonent bi ne xifeet yeewu gis abubakar kanam gi xonq cur change mu ne ko maalaka yaa abubakar lan moo la dal yow abubakar mu nekk ko jaanama mat mu nekk ko dalal sa xel jaan du rey ci sama kanam ci la ne ñokket jug jël kaalam raay ko ci boppu Abubakar ba ci tànk yi jëf yi ne ruseet moom get dangar ji euh, euh, wàcc ci moom jaan jooju wax nañ ne dangar jooju moo des ci biir yaramu Abubakar ba moo ko yóbbu mu wuy ji borom douze ans après danaan def tous les deux ans tous les deux ans euh, dana ko dana ko dal mu ñëw ci yonent bi mu raay ko bi mu demee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu deux ans yi après bi mu ko daanelee ci la ne soxnaam damay wuy ji sama borom ndax yonent yàlla Muhammad mi ma daan ñaanal wuy ji na boromam te dangar ji jàppaat na noonu la wuy ji borom moo tax ñu mën ko boole ci shahid yi donte kenn reyu ko ci lalam la faatoo waaye dangaru jaan jooju moo mu jëray waaw lii est sacrifice moo tax mu ne ni'mal fidaawu ak baax sacrifice bi mu defal yonent bi nan la def mu ne fafadaa nafsahu bi akrami rusdin li'tilaa'i islaami xadun alaa'u abubakar li tax mu baax mooy fafadaa moo jote nafsahu boppam bi akrami rusdin ci gën ci àdduna bi muy yonent yàlla muhammad dugg ci pax moo xam ne nii xamoo lu fa nekk nga mën a jël sa yére yëpp saañe ko pax rafle jël sa tànk teg ko ci barab boo xam ne loraangee fa nekk ngir yow bay boo na nga dee mais yonent bi mucc ñu foog na fa lay yem biñ génnee ci xur wi di dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war na gëléem Aboubacar war gëléem mais téere yi nee nañu Aboubacar dafay daw ci côté Euh, est bi dawa dawa daw toll ko foofu ab diir ba yàgg avancé dem ba ci côté noor bi dawa dawa daw ba jiitu ko jekki-jekki euh, defaat demi ñëw ba ci côté sud bi defaat demi tour ñëw ci ouest bi di ko wër noonu rek ñu ne lu tax yonent bi ne ko looy def nii mu ne ko damay bañ luy loraate bu la waree jóge penku njëkk dal ci man ma dee sama dund amul amul solo te yow sa dund am na solo bu waree jóge ci noor bi na njëkka a dal ci man bu waree jóge ci sud bi na dal ci man bu waree dal jóge ci ouest bi na dal ci man di ko wër noonu di ko wër ndomb noonu la dëkkeek moom ba bañee àgg Quba keroog nag bañu àggee Quba ci la jullit yépp ñëw songaleen téere yi nee nañu Abou Bakar sacrifice boobu mu def lu tolloog juróomi téeméeri kilomètre diggante Màkk ak Madinatu Munawwara mu téel ñu ci yàlla Muhammad ci waxit di ko jox muy lekk di ko jox muy naan te benn jullit néew fa tey jii dem nañ ba jullit yi mat un milliard ekkel quelque kenn ku nekk war ngaa gërëm Abu Bakar euh, Siddiq euh, alayhi ridwanullahi alayhi euh, wa rahmatuhu ndax téewal na la sa sang jamono joo xam ne nekkoo fa woon bu dee sécurité la moo taxaw woon sécurité am donte yàllaa koy aar bu dee jox ko mu lekk la wala jox ko mu naan wala jox ko fa tabaarakallahu tëral ko mu tëdd moo ci wuutu woon xeet bi yépp diggante Màkka ba Madina jullit yi nag di ko soog a gis fête bi commencé loolu mën nañ koo koy Abubakar moo tax mu ne fafadaa moo jote nafsahu boppam jaay boppam bi ak rëbi rusin ngir ngën ji mbindeef yi mucc lu tax Aboubacar pour yonent bi mucc mun a déedéet dama xam ne kii messager da jëla man Aboubacar bu ma deewee dañ may ñaanal rek mu yem fi mais kii moo yor flambeau wu yàlla ci kaw suuf kon bu faatoo mission yàlla arrêté woo tax mu ne li'tilaa il islaam yi ngir kawel islaam kon xawsun loolu cër la ala ubu kawe kawe kawe yàlla ñu ko yàlla fayal Aboubacar Aboubacar mënatuñ koo fay mu ne wa abu xafsi zu diyaanati xasman qaa'ilul xaqi laysa fiihi ixtifaa'u ku ñaareel ki gannaaw abubakar mooy omar ibnul xataab omar ibnul xataab bari na ci saxaaba yi ñu ko mag lool ci ay at ñëpp ko mag ñu ci bari usmaan ibnu affaan ko mag abubakar siddiq moo ko mag ak ñu ci bari ci saxaaba yi bari na ñu ko jëkk a tuub ci lislaam Abdullah ibnu Mas'ud sax moo ko jëkk a tuub waxatuwala Ali ak Ousmane ak Aboubacar ñëpp ko jëkk a tuub ñu ci bari ndax mooy quarantième personne bu lislaam mais toroota na góorgóorlu di avancer di avancer ba ñëw deuxième position moom ab Omar boo nee Aboubacar Omar nga ciy teg te du ay at waaye pas-pas la rek moo tax mu ne wa abul xafsi ak baayu xafsa zuddiyaanati borom diina ju sell ji xasman ngir dog qaailul xaqi mooy waxkatu dëgg bi nga xam ne laysa fiihi nekk ci ixtifaaw dëgg nëbb moom dëbbul dara yonent bi sallallahu alayhi am na trente neuf personnes di tëju ci kër arqam ibnu abi arqam benn saxaabi la boo xam ne ni ci banlieue presque màkka la nekkoon ci kaw màkka fa daan nëbbatu di julli bi ñu demee ba ñu sonal jullit yi sonal leen ba sonal leen yonent bi ne allahuma ayid ayid al islaam bi ahadi al umarayn umar ibnu alxataab wa amr ay yàlla maa ngi lay ñaan nga dëgëreele lislaam ci ñaari omar yii mooy omar ibnu alxataab wala amr ibnu hisham omar xam nañ ko amr mooy abu jahlin yàlla ay yàlla dëgg la bërki démb rek nga dëggale lislaam ci xamsatu ibnu abdul muttalib ba loraan ngay wàññeeku waaye boo ci dolliwaatoon ñaar ñii de nga xool ci ki gënal nga dugal ko dana danañu noppal te la mu ñaanoon itam noonu la nangoo jibril ñëw jël ñaan bi fekk abu jahlin ak omar ibnul xataab jarbaat ak nijaay lañ tëdd mu fekk amr ibnu hisham muy abu jahlin dëpp mu fekk Omar ibn al jaaxaan mu jël ki jaaxaan euh, roof ci moom ñaan bi Omar jekki na bëri jug yëngal bopp ne dëgg-dëgg daal mbiru Muhammad tey laa koy arrêté sonal na dëkk bi loolu nag tey lay doon nekk doog a nekk ci xelam abu Omar ibn al-Khattab euh, ëppoon na deux mètres et largeur am yaatu woon na lool doon góor goo xam ne bunt bu muy dugg ba watul day sëgg am doole bu dóoree tànkam ci suuf boo boo ko jegee da dégg ni tànk bi di dalee ci kaw suuf ndax ni mu amee woon doole ku mu dóor ba watul nga dee ndax kartan gu bari nii mbëru làmb yi mel Omar ibnul Xataab moo leen ëppoon yàlla may ko kàttan mais mu doonoon nit ku tàng mu ne daal mbiru Muhammad boobu ba tey ñu ngi koy wax waxuma ci mais tey dinaa ko lijjanti jug gàddu jaaseem di waaxu naan man yedullu nii ala muhammadin kan moo may tegtal fan la muhammad ne ma la kaawam tey benn waay dogaale ko nekk yow foo jëm mu nekk muhammad laa bëgg a dem rey ji mu nekk côté kooku jullit la te xam na ne Omar jàmbaar la mu nekk bala ngaa rey ji Muhammad ak lijjanti lu mu ne doo lijjanti sa kër ba pare mu nekk sama kër lu fa am mu nekk ko sa sœur tuub na ak jëkkëram luy loolu mu nekk ko Fatimatu bintu Xattaab yéen a bokk ndey ak baay tuub na ak Zayd euh, Saïd ibnu Zayd bii jëkkëram Saïd ibnu Zayd doom la ci Omar ndax Zayd ibnu euh, Amr ibnu Nawfal moo ko jur doomu baayam lañu ñu may euh, euh, euh, doomu doomu baayam la ñu may rakkam ñooñu sa sa famille demal nga lijjanti leen Omar jaaxle ne non loolu kan moo ko war a yàq ba biir këram am ñu fay gëm yonent bi ne wërañ dem jubal këram ak jaase comme moom bu dégmalee barab nga dégg ay tànkam ndax noonu la ko yàlla binde woon fekk na Saïd ibnu Zayd di jëkkëru sœur bi jëkkëru Fatima ñëwoon li jàngal couple bi benn sëriñ bu leen bu ñu doon xabaab ibnu rëtti moo ñëwoon doon doon leen jàngal alquran saar yi jëkk a wàcc bi ñu déggee euh, tànko Omar moom li mu jëkk a def mooy dugg ci pantre bi moom xabaab ndax comme jaam la woon amul doole moom buñ ko doole moom day dee mu dugg ci euh, mu dugg ci pantre bi ñu firil kërido yi mu ne ci biir couple bi nag topp Omar ne tël bunt bi ñëw janoog ñoom bu xi leen bëti ne ma hadihi lhaymanat li asmauha xum-xum gi ma doon dégg léegi lan la ñu ne ko Fatima ne déggoo dara mu ne ah kay dégg naa dara yéen dégg naa da ngeen ci diine Muhammad ji naka lay wax loolu rek nar songa muy goro bi Saïd ibnu Zeyd dóor ko moo ko ëpp doole naka la ko dóor war ci kawam commencé mbéj ndaw si doxe ka gannaaw buddi ko ñoo bokk deret nag te ëppalewu ko dara ne ko Omar dalal lii lan la moomoo nit ñi mu mer rek mbéj ndaw si bi mu mbéjee ndaw si loxoom dal ci jaaru bi jaaru bi foq fuqatiku deret ji sànni mu nekk ko ah Omar Fatima ay wax de ah Omar sa jàmbaar yëpp amoon foo koy wan lu dul jigéen di tuur deretu jigéen murus nag ci arab bi mu rusee jug jug jug jëkkër ji taxaw ne ko bàlleen maax bàlleen maax dama dégg ne da ngeen tuub ma ñëwoon rek doon laaj ndaw si mer ne ko tuub nañu ba sàmba di ca dem lan la léegi lan la dañoo tuub laa wax mu rus nag xamatul lu muy wax mu ne man ñëw mu woon fii sax pour def leen dara mais dama bëggoon rek xam yéen diine ji ngeen nekk diine lal la mu nekk ko mais Fatima ne kenn du ko xamee nii yàlla moo yónni yonte yàlla Muhammad jox ko ab téere pour mu xettali nit ñi ci njubadi andi leen ci njub ana téere bi Fatima génne ko mu ne ko jox ma ma liir ko ndax Omar bokkoon na ci les rares personnes yi nga xam ne mënoon nañu liir te ku bëggoon a liir la itam mu ne ko sobe nga mënoo koo liir demal sangu ji téere yi nee na ñaar la ci jublu bés bu demee ba euh, dem sangu ji bu dee jaral na ko mu sangu ji rek am na yéene pour déglu ko am ñu ne déedéet dafa bëgg mu làpp ala kulli xaalin Omar dem sangu ji ñëw ñu jàngal ko suuratu taaha mu commencé liiral boppam bismillahi rahmaani rahim taaha ma anzalna alayka alqur'ana tashqa ba ci allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul husna omar commencé jooy jooy di loxo yaram bi dee na alqur'an waxu yàlla la ku ko dégg rek di nga xam ne lii du waxu nit mu commencé di loxo ne dëlloo nii ala muhammadin léegi nag bu njëkk ba moo daan wax tegtal leen ma fu muhammad nekk ma rey ko tey nag mooy wax tegtal leen ma fu muhammad ne pour ma tuub naka la commencé wax wax yu mel noonu nag ki won ci pantre bi soo ko génn génne nekk abshir yaa omar ay omar bégal fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma ayid al bi ahadi al umarayn wala àlla daawata xad istajaaba bi ka Omar bégal ndax dégg naa tey ci suba yonent bi bi mu jullee ba pare mu naan yàlla yàlla na nga dëgërale lislaam kenn ci ñaari Omar yi muy yow ak Abu Jahlin mbaadu ñaan gi dala dal kaay ma yóbbu la kooku téye ci loxoom muy Xabaab ibnu Arat ñu ñëw ba dugg euh, kër Arqam am nag ñu ay jullit yu séenu ci fenêtre bi seen Omar ibnul Xataab di ñëw di tertali ñu tiit yuuxu ca biir ne Omar a ngi ñëw Omar a ngi ñëw ñëpp tiit nga xamoon nañ jàmbaaram Hamza ibn Abdul Muttalib mu nga fa ne leen dimbali leen nit ñi Omar nit la ni ñun bàyyi leen ko mu ñëw bu ñëwee indi fi jàmm fekk fi jàmm ju yaatu bu ñëwee indi fi safaan jaasi ji mu indi laay jël rey ko ci ndax Hamza itam kenn mos koo yàq Omar naka la ñëw rek Hamza songo jiital ko dar dar dar ba indi ko ci yonent bi biñ ko indee ci yonent bi mu taxaw ak ngandaay bi war ku ngandoon la yonent bi jiitu ko ci man-manam yonent bi téere yi ne dafa boole ñaari baatu yére yi bi ko ba mu xam ne góor a ko téye mu ne ka mata tantahi yaa Omar kañ ngay daytalu yow Omar ci caay-caay ki nga nekk ci tuub xanaa dafa jotul nga delloo sa bopp njukkal ci yàlla subhanahu wa taala mu ne ko al aan aslamtu ya rasulallah tey dama ñëw pour tuub ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ba mu waxee loolu julit yi naan allahu akbar téere yi nañu allahu akbar jooju dañ koy yuuxu di ko yuuxu ba waa Màkka di ko dégg xam nga ku doon nëbbatu bu mujjatul di kàbbar ba waa dëkk bi di la di la dégg sa xel dal na naka la julli jot ñu commencé yonent bi ne tisbaar jot na nañu dem ci xur yi dem julli ji commencé génne mu ne foo leen jëm ñu ne ko dañuy julli ji mu ne ah julli ma leen ne kaaba gi moo gën ci jàkk yi ci àdduna bi yëpp ñoo waaw waaye amaguñu kàttanu jullee fa Omar nag ne leen man duma dugg ci diine ji ñuy xum-xume xam nga lu xew dañuy dem jàkka ja fële julli ji mbaa ma génnaat ci diine man yàlla bindeew ma ma doon kun mën a nëbb Omar jiital saxaaba yi téere yi nee nañu image boobu ku ko gisul gisoo lu rafet jiital leen yor jaaseen xale yi di dox di dox ba ci digg kaaba ji ñu defar sàpp yi yonent jiitu saxaaba yi def sàppe Omar amee jaasem doon gàddam nit alayhi euh, taxaw yébar ku daw boo déggee kàddu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah boo dawee ba ñëw yem ci Omar da ngay tiit ba taxaw ñuy buxli seen bët naan soba a omar soba a omar omar jeng na omar jeng na muy dóor ñi koy wax naan maa sababtu bal aslamtu jenguma damaa tuub <laughs> jullit bu ma sa tuub da koy nëbb keroog bi Omar tuubee dafa nekk eh, ban géwél moo dàq yëgle information ñu ne ko diw mu ne wool ma ko mu woo ko mu ñëw mu ne ko dama bëggoon nga jël sa dënd wëral ma dëkk bi ne man dugg naa ci diiney Muhammad waa ji yor dënd bi tiit naan saba a Umar Umar de na mu topp ci ganaaw di dóor mbagg bi naan kaan maa sababtu bala walakin aslamtu bàyyi li ngay wax jéngu ma dama tuub <laughs> léegi nag jur yëbër yi ragalee ko yonent bi sallallahu alayhi kooku dama lay laaj ndax lislaam mën na koo fay ku mu fekk koo xam ne nii dafa fekkoon lislaam di nëbbu mu tuub ba ñu génne lislaam ba tey xëy na sax ci génne googu yow nga tuubee mënoo koo fay moo tax saxaaba yi duñu ay morom ay sang lañ moo mu ne wa abul xafs ak ab euh, euh, abul xafs zuddiyaana ci borom diina ju sell ji nee na moom du nëbbu xasman ci dogu qaailul xaqi moo daan wax dëgg te laysa fii xifaaw du ko nëbb moom nee na diine mi amul nëbb adhara alxaqa walislaama suraaxan laa yaxaafu fi llaahi an yamtiraau omar bi nit ñiy tuub di ko nëbb di gàddaay di ko nëbb azhara alxaqa moo feeñal dëgg gi di lislaam wal islaama suraaxan carrément bi ñëpp gis ko laa yaxaafu mosta ragal fillaahi ci wax ci yàlla ak wax dëgg ay yamtiraaw lu lu amul benn werante xanaa xamoo Omar jigéen ñii ñii di muuru muy xijaab Omar moo ko indi moo ñëw ci yonent bi ne law amarta niswaan niswaana an yaxtajib na yow yonent bi ak gisoon naa ne jigéen ñu jigéenu jullit yi est doo leen digal ñuy muuru ndax jigéenu jullit bu naree yem ak jigéen ya ca mbedd ma jaratu ko lu dëgg xam nga jigéen jigéen la rek mais jigéenu yahud yi ak jigéenu nasaraan yi ak jigéen ñi jaay seen bopp ci mbedd mi ñooñu bu ñu naree yem ak jigéenu jullit yi nga xam ne ñooy suñuy soxna xam nga du ko jarate foofu mu taxaw di wax loolu rek ci la aaya bi yàlla euh, euh, euh, wàcc yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna Omar dafa dëggu woon ba lu mu mas a wax yàlla wàcce aaya dëggal loolu moo tax maam Cheikh Al Hadj wax ne wa kam nasala al ayat wifqan lima bihi abu xafsin al kaana yaqulu bari na bari na fu aaya wàccee typiquement li Omar ibnul Xataab wax loolu la yàlla dëggal bari na ci alquran moo tax mu ne laa yaxaafu fillahi ay yamtiraawu ku ñetteel ki mu ne wa abu abdullahi usmaanu zunnu rayni sihru rasuli fa huwa saxaau ñetteel bi di ñetteelu xulafaawu rachidin yi muy abu abdullah baayu abdullah yonent bi moo jël soxna doomam bu ñuy wax ruqiyatu may ko Ousmane ibnu Xattaab téere yi wax nañ ne couple bi gën a rafet ci arab mooy Omar mooy Ousmane ak soxnaam boobu ñuy wax Ruqayya ndax Ruqayya baayam la jël muy yenent bi ci taar Ousmane moo dàqoon jigéen ñi Ousmane dafa rafetoon rafet ba nit ñi dañ koy seetaan yàlla def ci moom kersa gu bari waaw jëkkër bu rafetee jabar rafet defe naa ne leen leen seetaan couple boobu nag bi ñu sonalee l'islam la yonent bi yebal leen ñu dem Éthiopie moo tax ñoom ñii ñëw nañu fii ci Afrique bi ñu ñëwee couple boobu soxna si ëmb bi mu ëmbee am doom bu góor doom bu góor boobu mooy Abdullah ñu ngi ko suul ba tey Éthiopie ci suufu Afrique moo tax ñu ne surtout yonent bi suul nañ ko ci Afrique hmm. Abdullah boobu noonu dund na ba am six ans Ousmane ak Diouf mooy taawam moo tax ñuy tudd ñu koy woowee Abu Abdullah bi mu amee bi mu amee deux ans ñii ne six ans benn benn benn euh, séq séq séq moo moo cof bët bi mu new yi di new newi ba xale ba cala jaare wuy ji borom xam naa séq bi rek soxor na torop hmm. moo tax mu ne waa Abu Usmaan Zunnurey borom ñaari leer yi Ruqayya mii bi yonent bi gàddaayee dem Madinatu Munawwara Usmaan dafa ànd ak soxnaam si dem Madina bi mu ñëwee Madina tooy jàpp ko mu feebar wuy ji boroomam looloo tax Usmaan demul Badar ñu suul ko foofu biñ ko dëjee ba dëj bi jeex yonent bi jëlaat rakkam ju mbokkal ndey ak baay muy Ummu Kulsum ko Usmaan mu sëyeg moom ba atum juróom ñetteel bi mu faatu yonent bi jooy ne ko billaahi bu mu amoon junni euh, téeméeri doom yu jigéen ñuy faatu ma lay may faatu ma may ba mu jeex téere yi wax ne mosuñoo xam mosuñoo xam benn góor bu takk ñaari doomu yonent yu jigéen ci àdduna ku dul Usmaan ibnu euh, Affaan moo takk Roqaya ba mu faatu ñu may ko rakkam moo tax ñu koy wax zunnuure ni borom ñaari leer yi sirru rasul yi moo doon goro yonent bi fa huwa moom saxaa u moo doon jëmmu tabe la yonent bi daan na wax ne may buntu kersa may néegu kersa Ousmane ay bunt bi waaye tabe itam Ousmane moo ko def Ousmane ku bari woon alal la commerçant la woon moom itam nii ko Aboubacar nekkee bu doon tey multimillionnaire la woon mais alal ju mu mas yor jox na yàgg jox na ko yonent bi dina ci indi rek ñaar dafa am benn yahud benn juif boo xam ne moom moomoon benn benn benn benn teen bu nekkoon foofu te arab yi dañu amoon problème ndox dañuy bëgg sangu farata mbaa ñu julli mbaa ñu jàpp bu ñu demee pour uti ndox waa ji di leen chantage di leen ko jaaye lu cher léeg-léeg sax mu chantage leen xañ leen ndox mi yonent bi toog ne ak a neexoon ab jullit buy jaayanteeg yàlla dem jënd ji teen boobu yahud bi di def chantage moomal ko boppam ba nga xam ne ñun jullit yi bu ñu soxlaa ndox moom moo ñuy jaay ndox maanaam li mu ci jublu woon mooy commerçant boo xam ne da koy jënd pour ñoom fu ñu soxlaa ndox mu jaay leen ko hmm. Ousmane ba mu ko déggee dem ci waa ji waa ji taxi lu cher mu ne jaral na ko fekk lu waroon a jar deux cent mille mu mu jënd ko ci moom huit cent mille bi mu ko jëndee dellusi jël caabi yi jox yonent bi yonent bi nekk lii la mu nekk teen bi nga doon tiisoo jënd naa ko jox naa la ko ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala hmm. yonent bi yëngal bopp bi te Ousmane ma def loolu yëg nga ne mar mar moo ko rey mar ma moo lay wan ne yàlla ay nattu hmm. yonent yàlla muhammad xaswatu Tabuk toog na ci jàkk ji ne man ne man de jaaxle na samay nawle laa waxantel euh, xare boo xam ne nii weer wii di ñëw la te maa ngi nii argent de poche yoruma ci dara ay waay ak a neexoon jullit buy defal yàlla ba mën a dépenser euh, maanaam financer xare bi ñu laaj laaj laaj li ñu dajale daanaka du mat sax cinquante mille francs Ousmane ñëw ci yonent bi ne ko bàyyi laaj bi mu ne mu nekk maa ngi lay yëgal ne garanti naa financement wu xare bi yëpp juróom-ñeenti téeméeri gëléem a gi nii teg naa ko mottalee naa ko téeméeri fas yoo xam ne ga euh, euh, ay euh, seen teg mu ngi ci argent de poche bi mu ngi ci te damay wax ne juróom-ñeenti neuf cent gëléem ak téeméeri fas loolu rek xaalis boobu rek ku ko estimé kenn xamul nu mu toll booleeg argent de poche bi ak euh, yi nga xam ne moom la ñu war a dunde mu ngi ci yonent bi nekk Ousmane yaa def loolu mu ne ko waaw mu ne ko maa darra Ousmane yonent bi ko wax de waxam ju siiw jooju hmm. maa darra Ousmane maa faala baada al yawmi xaw kan waaye Ousmane mënatul def yàlla lu ko naqari hmm. ci àdduna seetal bi wax hmm. Ousmane mënatul def yàlla lu ko naqari ci àdduna lu tax Ibrahima Sakho daan wax ne billaahi wallaahi tallaahi diine joxe ci la bokk hmm. di julli rek xam nga julli kese bu doon mayee wala woor wala fanaanee naafila Ousmane bu dégg lii hmm. yonent bi ne maa dara mënatu lor Ousmane maa faala lu mu def baadal yow mi gannaaw tey maanaam dara mënatu kaa dem àjjana kii lislaam mën na koo fay moo tax mu ne ishara nafsahu Ousmane moo jënd boppam fillaahi ci yàlla bi biiri aruuma ci teenu aruuma wa jaysel usra ak xare boobu muy jaysel usra aljalaawu gu leer ga moom Ousmane moo def loolu yàlla yàlla fayal ñu ñeenteelu xalifa bi euh, fa la ñuy mooy Ali ibnu Abi Talib moo tax mu ne wa abu xasanayni aliyun aliyul himmatil xazmi la lah liwaau ñeenteelu xalifa bi mooy doomu baayu yonent bi seen ñaari baay bokk nekk baay booleeg yaayam moo yar yonent bi booleeg moom yonent bi moo ko yar wa abul xasanayni ak baayu ñaari xasan yi yonent bi da ko may doomam bu ñuy wax Fatima Fatima mooy caatu yonent bi comme Roqaya may nañ ko Ousmane euh, mu faatu ñu may ko rakkam Ummu Kulthum saxaaba yi nag caat mi seen xel na ci Abubakar ñëw gaaral ko yonent bi yonent bi du mooyu ko nekk ndigalal yàlla la doon xaar Umar gaaral ko boppam mu du mooyu ko te ñoom ñaar ñi ñëpp kenn ku ne may na doom yonent bi yonent bi toog ba yàgg jibril wàcc ne ko sa borom nee na mu ngi lay yëgal ne may na ali fatima moo tax couple bi ëpp doole ci àdduna gannaaw yeneen ci bi xadija mooy couple bi yonent bi woolu ali yu nekk lan nga am ndax sa borom kat may na la fatima ñaar ñi nag bul foog ne tey lañ xamante ñoo bokk kenn ku leen yar xadija moo jur fatima xadija moo yar ali ndax ali biñ koy jox xadija sept la am sattaa nag ku la ci yar ba nga nekk xale bu góor mooy sa yaay kon ñoom ñaar ñi ay doomi ndey lañ yàlla maye na la Fatima mu ne ko man de yonent bi ñaar laa am ci àdduna ñaari mbir der bi may jullee ak jaasi ji may xeexe ci yoonu yàlla te yaa ma ko jox zulfiqaar xam nga ne wute nag jamono ji de alit ñaari mbir la am ci àdduna jaasi ji muy xeexee ak der bi nga xam ne fa lay jullee te léeg-léeg der ba ca lay banku fa lay fanaane mu ne ko der bi ngay jullee yonent bi nekk der bi ngay jullee lu ma koy doyee indil ma kon jaasi ji ngay xeex ndax jigéen kenn mënu koo takk te defoo ci dara yonent bi ne ko demal ci marché ba nga jaay jaasi ji li nga ci amee ñu def ko can ci ndaw si Ousmane digg ko jooy ci mbooloo mi profitoo génne oolu benn jaamam ne ko demal dawal léegi ca marché ba temps ci xaalis ngi nii Alioune dina fa jaay benn jaasi ngi daw jëndal ma ko ndax li muy liggéey ci lislaam bëgguma jaasi jooju kenn rëcc ma ci kenn njëkk ma ci xale ba daw fekk Alioune naan aywa jaasi aywa jaasi mu ne ko ñaata premier prix mu jënde ko loolu jël jaasi ji dem ñëw jox ko Ousmane Ousmane bàyyi ba guddi mu ñëwaat ci Aliou delloo ko jaasi ji mu ne ko lii lan lii dama ko jaayoon mu ne ko maa ko jëndalu li ngay def ci jaasi ji keneen mënatu ko kon bëgguma jaasi ji rëccal ñii ay gor lañu mu jël njëgu jaasi ja nag jox ko yonent bi ñu jox ko Fatima muy canam ci guddi gi ñu defar lal ba muy place boobu nga xam moom la ñuy jullee moom la lal def fa nangam nangam ak benn leket ak nangam nangam yóbbu ko Fatima dem sëy ji ci guddi boobu weer ak dara euh, euh, euh, laata muy am at mu taaw taawlu doom bu góor mu ñëw Aliou ñëw ci moom mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Fatima am na doom bu góor tudde naa ko xarb tudde naa ko xeex parce que comme Aliou jàmbaar la hmm. mooy jàmbaaru jàmbaar yi dafa bëgg doomam doon jàmbaaru jàmbaar yi te wax dëgg yàlla turde day wuyu mu ne ko tudde naa ko xarb muy xeex mu ne ko laa tusammihi xarban bal sammihi xasanan bul ko tuddee xeex tudde ko yiw wi lëbb ya moo tax xasan ku baaxoon la mu tudde ko xasan ñu dem at ma ca topp mu amaat doom mu ñëw ne ko ah kii de tuddew ko mu ne ko kon tudde ko xuseyna mooy yiw bi gën a ndaw ñu demaat diir mu amaat doom mu nekk ko tudde ko mu xassin ñépp ay bien la mu xassin nag teel a mu amaat doom mu tudde ko Zeynab asura ñii la Fatima am euh, ci ay doom ak Umu Kalsum muy caatam juróomi doom la Fatima am ak Ali wuy ji boromam moomu moo gën nag ci jigéeni àdduna bi dana ko indi ca kanam Euh, moo gën ci jigéenu àdduna bi jëkkëram mooy sangu jàmbare seen ñaari doom ñoom ñooy sangu jeunesse su àdduna ak àllaaxira moo tax mu ne wa abu xasanayni ak baayu ñaari xasan yi muy xasan ak xuseynu aliyun laa wax kuy aliyun mu ne aliyul himmati mooy kii kawe yitte yitte ju kawe la am alxasmi alxasmu ku dogu ki yurfau ki nga xam ne moom lañ doon yëkkati lëhu liwaawu drapeau drapeau bépp bu lislaam jot a yor bu ko Aliou téewee ndam am Aliou xeex bu mu dem yonent bi buy compter jullit yi un trois bu ñëwee ci Aliou euh, danaan kii moom daanaka wecci na mbooloo mi te ci njàmbaar noonu la meloon keroog yonent bi ba mu atum juróom ñetteel juróom-ñaareel ba mu xisaaree ba mu embargoowee xaybar xaybar dëkku yéefar la dëkku ay juif la alal ji bari lool lool lool yonent bi yahud yi war ko mu mer ne jullit yi nañ dem gannaaw bi mu jógee sulxu Hudaybiya bi ñu ànd jullit yi ñu embargo leen tëj leen weeru yàlla ma ñoom yahut yi ñu tëj seen bopp ci biir dëkk bi ci tata bi kenn mënul accéder ci ñoom ku jege bunt bi ñu sànni la ay fett ba nga bàyyi wala nga denc ñu toog ba yàgg fa ba yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog xaal njàpp ko mu ne la utiyanna raayatal gada bi rajulin yuhibbu llah wa yuhibbuhu llah maa ngi waat ci yàlla ne suba dinaa jox drapeau l'islam benn waajoo xam ne yàlla du ko bëgg lool moom it mu bëgg yàlla lool yonent bi bëgg ko lool moom it mu bëgg yonent bi lool te insha allah mooy ubbi xaybar ñu gañe combat bi Omar ibn Xattaab nee ba ma juddoo ba bésu keroog mësuma bëgg ak pal pour ñu fal ma dara waaye keroog bëgg naa ko ndax critères yooyu ñu wax bu ma sañoon doon ba ñu xëyee ba ci suba gi ñëpp toog di xaar kan la ci bi war a wax mu ne ayna ali ana ali ali ibnu abi taalib ana mu am ñu yàkkamte ne ko non dafa dafa wànnante moom de dafa feebar fan yëpp génnul mu ne woo leen ma ko laa wax ali biñ koy woolu muy ñëw da doon jàppandu dañ ko jàpp muy ñëw ndax mënul xool bët yi dafa rëy te ku ay bët say bët rëy sa wànnante day metti yonent bi ne ko loola dal mu ne ko dama wànnant mu ree jël lu mel ni xor tufli ci raay ko ci bët bi mu weex tal mu jëlaat tufliwaat raayaat ci beneen bët bi mu weex tal mu jox ko jaasi ji ne yàlla nee na yaay xëttali jullit yi tey aliyu yuuxu bu ma saana yuuxu da foog ne gaynde gaynde yuuxu bu mu la jaaxal nag ndax Aydara la ko yaay yaayam tudde Aydara mooy gaynde moo tax moom mu tudd Aydara ay sëtam ba tey dañ leen di dàkkantale Haydar mais seen maamu ko santoon Haydar mooy gaynde gi Aliou bi mu yuuxu dëgmal buntu Xaybar moom moom moom moom ba dajji bunt bi ba mu duggee yahut yi dañu waat ne kii du nit mu jëf leen jëf yu ñaaw ñu daw mu donnale alal jooju jullit yi ba bisu tey jullit yi ñoo doon xaybar ak tabaarakallahu teraanga ja ca am Aïcha nee bi ñu gane bi ñu demee màkk euh, bi ñu jugee màkk dem madinatu munawara tàngoow ñoo xiif ku lekk tey doo lekk suba lekk tey doo lekk suba ba ba jullit yi ubbee xaybar ci la ñu amee dund gu doy te yi la ñu yoroon ci alal kenn xamul mu toll alin mi def loolu laa wax keroog itam xaswatu ahzab na mu doxoon omar bnu wëddi bañ koy wax ngontal allin li yii ndam ku ko sa kilifa def mën nga koo fayati déedéet moo tax mu ne fataxal xaybar alxasina bi nuurin min ilahi fa sayidun faxtilaau allin kenn mënu koo fay ndax fataxa moo ubbi xaybar alxasina bu ñoŋ boobu lan la ko fan la jële force boobu mu ne bi nuurin min ilaahi ci leeru yàlla ak ndigalal yàlla alim daal mooy sang fa sayyidun sang la fa abtilaahu moom daal moo kawe ñii nag ma tudd nii jeexaluma ñëpp mais dama la indil quatre personnes yi pour nga gise ci maanaam ñi ci des ñii mënuñu leen fay te mu ngi mel ni mari d'Italie julli ci dañ leen fàtte léeg-léeg nga gis ko kawel sëriñam kawel sëriñam ba mel ni sëriñam ñii moo gën ñii fekk njuumte la ñii ñooy xayru quruuni kon yal na yàlla fayal ñu leen ñoom muhaajiruuna yii yàlla fayal leen waaye bu ñu amul woon ñu leen dalal itam muy lan saar defe naa toog ga du fa mën a nekk ba lislaam di tasaaro moo tax mu ne wa jazallahu man awawka fa ansaarun li diinil ilaahi hum xunafaau wa jazallahu yal na yàlla fawe fayal ñu man awaw ka ña la ci seen dëkk nga xam ne boobu risque la koo xam ne ñëpp a koy wër pour rey ka nga dalal ko ci sa dëkk defe naa ku koy daw nit boo ko doon dàq ba mu dugg ci kër foo foo jëm yow ca kër ga ñoom sax ansaar yi ñu ñu ñu dalal la fa ansaarun di la dimbali ba pare di dimbali di diinil ilaahi ci diine yàlla hum ñoom unafaaw dëgg-dëgg nit ñu baax lañu ñu mën a seen borom lañu ñan ngay wax ma ne hum banu xaylata jazaahum ilaahi kulluhum ahlu saa jin hum suadaaw mooy ahlu banu xaylata xaylata benn jigéen la woon bu am ñaari góor kenn ki tudda awsu kenn tudd tudda xasraj ñoom nag ñaari doomu ndey yooyu ñoo mujje doon ay giir ñii ñu naan leen aws ñii ñu naan leen xasraj ba kenn ku ne doon giir xaylata boobu jigéen moo tax mu ne hum ñoom banu xaylata boo bëggee gàttal nag danga naan doomu ndey ya rek muy xaylata jazaahum yàlla yàlla fay leen ilaahi kulluhum ñoom ñëpp ahlu saadin nit ñu tabe lañu ñu baax lañu hum ñii suadaa u ñu ñu ñu texe lañ ci seen borom alayhim ridwanullahi alayhim ajmain euh, ñoom liy gën a yéeme ci waa Ansaar liñ jikkoo woon mooy al isaar isaar mooy loo xam ne nii maa la ko gën a soxla nga xañ ko sa bopp jox ko ko Abdurahman ibnu Awf saxaabi bu mag la doon zuhri bi mu jógee Makkatal Mukarrama ñëw ma Madina doonoon borom alal doonoon borom daraja yonent bi mu ngi ko boole ak euh, jumelage ku ñuy wax abu talha al yi abu talha bi ñu paree ci cérémonie de jumelage bi dafa nuyonteeg abdourahman ne ko bis ni tey maay sa frère ñoo bokk ndey ak baay kaa ñu dem sama kër mu yóbbu ko këram wanale ko ay soxnaam ak ay njabootam ne ko nag yaa abdourahman inna lii jannatayni ay bustaanayni wali imraatayni faxtar min ayihima chita uqaasimuka bihima yow Abdourahman mu ne mu nekk sama kër a ngi nii tànnal ban place moo la ci gënal ma daggal la ko muy sa kër sama ñaari soxna yi ñu ngi nii tànnal ki la ci gënal ma fase ko bu iddaam jeexee nga takk ko am naa ñaari tool benn bu nekk tànnal bu la ci gën a neex nga jël ko Abdourahman ne ko barakallahu laka fi ahlika wa fi maalika wa fi bustaanayka yàlla yàlla barkeel say say soxna barkeel say kër barkeel say tool waaye dulla nii ala suuq wan ma fan la marché bi ne rek la ma liggéeyoon ba am ka màkk ci alal bu ma ko liggéeyaatee fii dinaa ko am ñoom ñaar kan moo gën a gore ñaar ñëpp a gore mu wan ko marché bi mu jaay ko ba abdourahman ibnu awf bokkoon na ci saxaabi yi ëpp alal mu mujj dund mu jégi da daan jooy ndax teraanga ju bari ji ko yàlla may ci alal daan na wax ne yàlla deselatuma dara kon ñii nii mbooloo mii àdduna mën na produire at gën ñi déedéet du am kon bu ñu bëggee woyofal ñii naw suñu bopp naw suñuy kilifa diine ba mu mën a nar a jur xeebaate ci ñële njuumte nag day doon yàlla yàlla fayal ñu leen ndax lépp lu ñu am ci mbaax mbaaxu ñii moo tax ñoom ñoo sacrifier seen alal sacrifier seen i doom sacrifier seen bien pour pousse l'islam pousse xam-xam ba ñu mën cee jot tey ba léegi presque quinze euh, siècle après ñoom ñu ngi nii tey di jariñoo loolu yàlla yàlla fayal ñu leen hada huwa tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu